ak li nga xam ne aussi moom mooy ay privilège am lépp dañ ko daal di euh, neenal. Abdou Mbow nag moom xam naa neex xel gi mu nekk bu ko defoon ca am njàngam dana doon ministre ndax man wax dëgg yàlla bu man buy wax man maa ngi xool téléphone bi mhm. man loolu laa doon jàng dama ko suivre parce que nga am ci téléphone xanaa kii bu may woo téléphone dinaa ko déglu mu wax ma doo ko wax mais danaa teg téléphone bi di wax di tarare di neena neena neena neena mhm. Macky Sall woowu moom li cim xelam la doon wax léegi li ci topp ci loolu la président Ousmane Sonko su doon dil du egsi fii kon ba léegi bàyyi nañ ko dem maanaam tolloon na foo xam ne premier ministre Sénégal sax bu ko bëggoon da koy am président Ousmane Sonko wala sax vice président wala vice président président Ousmane Sonko du dem a dem ba nga xamante si ni un mois moo tee mu jot ci nguur gi tam leer sénégalais yépp leer ko muy dil du ko def uh-huh. bi mu génnee comme ni ko moom moo wax loolu la wax ci sees ba ñun ñëpp ñu fekk ko uh-huh. mu ne waxtaan am na naam waaye waxtaan bi ci ñett la tënk woon uh-huh. ñett yëpp amul benn buñ ci déggoo ki nga bokkal dil mooy koo xam ne da ne a déggoo léegi kenn moo fi jóg naan ay dil la te kooku fenkat bu mag la muy bogaan fenkat bu mag a mag a mag a mag mooy bogaan gee dani parce que addunaam yëpp da koo dil addunaam yépp da koo tappale tappale yooyu nag mu xam ne moo jeex moo waral muy mbër mbëri di jóg di yàq deru président Ousmane Sonko yàgg na koo yàq ca jamono inondation yu njëkk yi mu dem tasaare leen ab xaalis la président Ousmane Sonko ku ne xam ne ne yoru dara mu dem di leen massaw mhm. boobu la njëkk génn di ko gaarwaale naan ko yorul dara ba pare yóbbul leen booli wax. Mhm. kon mbañeel gi. lu tey dafa demoon ba ñàkk pexe xam ne la président Ousmane Sonko moo nekk fii senegal soo bëggee dem dangay ànd ak moom mu ñëw di def saale di saale saale lu di jéem a ànd ak moom président Ousmane Sonko nit nekk nit koo xam ne yàlla moo koy yabal fii ci senegal c'est don de Dieu ku mu neex ak ku naqari ci at yi ñu nekk moom mooy ki nga xam ne yàlla moo ko indi muy tracer Sénégal ci yoon bi nga xam ne ci lay jaar. léegi nag ñooñu ñi nga xam ne suñ borom defu lu leen tawféex dañ koy bañ te bëggoon dafa bokk ci ñooñu jaral na ko alal ji mu yor lépp na ñàkk na ko ñàkk te président Ousmane Sonko bëri réussir. Mhm. mu def lépp teewul président Ousmane Sonko réussir agsi au pouvoir di doxal ci réew mi jub jubal jubbanti. Mhm. te ju buggaan doxul ci lu jub. tiriyaane na waa jooni jooni lekk seen xaalis. mu xam ne ñooñu def nañ ko porté nañ ko plainte te ki nga xam ne moo fi nekkoon di jël dossier yi di ci teg conca boroom ngandal conca li dem na boroom conca lu sew li moo ñëw muy président yi mu xam ne lépp ay leer loolu moo waral wax ji mu bëgg ku ko jàpp ci ay wax te bañ koo jàpp ci ay jëf mhm. te incha allahu rabbi ci ay jëfam ci lañ koy jàpp mhm. mu nekk nit koo xam ne nag ni mu koy defee baaxul parce que bu fekkente ne da ne góor nga da ngaa jiite ab parti wala nga jiite ab mouvement. Mhm. dafa am ay wax yoo xam ne yow waroo di ko wax ay dil mhm. loolu affaire jigéen la te buggaan yëfi jigéen lay def yëfi samp jeeg maanaam di xaste maanaam day samp jeeg mhm. moom ñoom maam Njaay Savon ñoo ko war a jël muy sampanteek ñoom jeeg fii langue politique gi samp jeeg amu fi fii li fi am moom mooy ngay ñëw di def débat d'idées di indi loo xam ne day amal njariñ sénégalais yi mais foo toog ci conférence de presse ay xuloo ay nett li nga fay nekkee soo demee ba nga xam ne président Bassirou Diomaye fay nga naan xusma président ni mel comportement affaire yu suufe yooyu ci yow xees goo xees nga jàpp ne yow dañ naan la da nga boo nga defee ne ak boo moo yor réew mi boo yoru Sénégal ak jantal yoru Sénégal Sénégal dañ koy jox ñu jub ba pare di jubal di jubbanti loolu la ñuy doyee président Bassirou Diomaye Faye te ci loolu la nekk léegi nag Bougane moom lim jàpp ne loolu la ñu joxee réew mi ak li ñu joxee réew mi bokkul moom dafa war a dem ci ñuy défilé de mode mu dem foofu di leen solal ay yére di défilé di wii mais mais làmmiñ Lamine Daaru xoolal euh, yow. buñ doon mhm. bu doon défilé de mode la ñuy def sax. waaw ah. ah, bu bu président. jàpp naa ne daggitu daggitu daggitu nit. lu cee bu président Bassirou Diomaye Faye yéeg si tapis rouge bi ak. ak ak Bougane saa Bougane day ñàkk nag. mais comme daa jàpp ne moom ci ak boo. ci la joxee réew mi moom na dem foofu ñun bu ñuy joxee réew mi xooluñu ko rafet xooluñu ko ñaaw ñun li ñuy joxee réew mi mooy da nga ñuy indil programme bu leer projet bu leer nga tegal ñu leer ñu man cee adhéré wu. Mhm. mais xooluñu da ngaa rafet. koo xam ne da nga ne woon boo yoree li nga bëgg mooy bu ne Bougane Gueye Dany nga ne gan ñu ne Gueye Dany sallallahu alayhi wa sallam nga ne yow boo yoree réew moom nga bëgg a def ñun doxewuñu noonu. moo tax maa ngi koy xamal ne moom ci lim nekk am samp jeeg la le président Ousmane Sonko du ko tontu. ñun ñoo koy tontu. ñun ñooy dugg ci biir caayam. di ca def lu ñu neex ci moom. mu koy naqari te du ci man dara. keroog nga baal ma nee na nee na léegi bu clashé Ousmane Sonko. waaw fenkat yu ndaw yi ñooy génn. moom bu classé président Ousmane Sonko fenkat classé nu fenkat ñun dañuy sant yàlla wér ndax ci catégorie bi mu dugal président Ousmane Sonko ci la ñu dugal te ñun ay jaabi président Ousmane Sonko lañ ay wax katam lañ parce que Sénégal lañ bëgg te président Ousmane Sonko mooy doxal Sénégal dañ koy aar dañ koy protéger ba benn saay-saay du joti ci moom moo waral léegi saa bu waxee tudd tëk tëkkër yi ñoo ko xañ jàmm bàyyeeguñ nag wut na ay saalam yu mag wut ay goneem jox leen connexion loolu mayewut yi ci Sénégal ñun mm. bi ñuy ñëw président Ousmane Sonko joxuma téléphone jëndaluma connexion ay principe lañ ko toppe yàlla moo moo nu jël mu dugal ñu ci xolu président Ousmane Sonko ñu bëgg ko parce que daa bëgg Sénégal mm-hmm. Bougane nag loolu lay jéem a chercher te mënu koo am na dem sawita tëri politique du ci jariñu da ci yàqule parce que koo xam ne entreprise bu dox rek mënoo koo yor yor nga jooni jooni mu daanu ndax li daaneel jooni jooni ak ay ay ay Sen yi ak ak seen entreprise yi mooy xale bu jigéen boo woo attaayaloo ko may ko un million bu yàggee la ko yor day jeex looloo daaneel buggaan jigéen ñi mu topp na leen bàyyi te dem takki jabar moo gën taxawaalu gi mu nekke fi ngay xamee ne bugaan moo mën a sos di sos bay sosal sa doom xam nga ne wax jooju mu wax ci doom ji naan ko sa saak bi dafa dafa yeex a déplacé dafa boobu ba léegi déplacé wut fii mu ne ko kasolaay waajal. Hmm. loolu ay fen gën koo rëy. barke alxuraanu karim waxut dëgg. préparé wut benn saag. te bi mu waxee loolu doom ji ba pare rek da ko waroon na bu mu fay dugg ay feneen mu fay dugal. parce que bugaan lan la doonee menace ba nga xam ne day préparé ab saagam di ko teg. Hmm. lan la yàqal nit ñi koo xam ne mënoo jàll paranaas mënoo am dara leer plus fort doo ko jàll moo waral mu bañ a dem ci ci ci wate yi mais li am solo daal moom mooy uh-huh. président Ousmane Sonko président Diomaye nekkuñu ay dilkat uh-huh. ay nit lañ yoo xamante si nii dañoo ñëw bootuwuñ parti socialiste bootuwuñ PDS fii lañ nekkoon di liggéey xool Sénégal ni mu doxe ñu dajaloo ci seenu bureau sos parti bi teg ay ay ay projets yu leer sénégalais yi adhéré wu ci jox leen bopp ñu yegg si ñun ñëpp ñu ànd ak ñoom. Uh-huh. te noonu lañuy ànd ak ñoom 50 ans allah allahu rabi moo tax ku bëgg a opposé wu da nga exactement mm-hmm. yàlla xam na ko. Mm-hmm. jërëjëf exactement moom moom. est-ce que euh, yaakaaroo moom Macky Sall lu tax jotul li nga xam ne nag mu ay privilège am en tant que euh, en tant qu'ancien euh, président li mu nekk représentant 4P fële ca Paris moo tax. bien sûr maanaam loolu dafa dafa loolu loolu on peut pas mm-hmm. moom président Macky Sall. mu jiite réew mi pendant douze ans. Mhm. keroog bi bi mu defee euh, passation ak le président Bassirou Diomaye fay la mhm. génne réew mi. boobaak léegi euh, la muy occupé nga xam ne daanaka sax balaa mu fi jóge lañ ko lañ ko dénk fonction bi. Mhm. muy ci cadre quatre p bi. donc moom bu fekkee ne en tant que ex président du Sénégal. dafa jël décision ne moom dafay dem servir réew France. waa est-ce que ñun Sénégal war nañoo ñàkk fayda ñàkk fayda gu doy nu ñun. di yëkkati suñu ko ak suñu réew mi situation bi mu nekk nii. nga xam ne on nous parle de pays en ruine le premier ministre wax ko la de euh, la dernière fois euh, FMI ñëw dëggal wax jooju noonu. waa léegi ñun réew mi nekk en ruine ñun dañuy yëkkati suñu koppar di ko jox président Macky Sall weer bu jot. wala boog di yëkkati ay sécurité dañ koy jox koo xamante ne ni moom mi ngi servir beneen réew. koo xamante ni actuellement dafay euvre pour lu intérêt wu beneen réew bu ñuy wax la France. Mhm. ñun Sénégal nga xam ne tey ñu ngi nekk si situation bi ñu nekk nii ñu war a yëkkati suñu koppar ak ay garde ak ay privilège ne dañ ko koy defal moom en tant que président. Mhm. sëñ bi loolu réew mi ñun mënuñu ñàkkee fayda noonu donc ma loolu moom euh, je je pense que c'est tout à fait logique. Mhm. comme moom bu fekkoon ne nag dafa nekk un président boo xam ne dafa préférer toog ci réew mi. wala ci doxalinam parce que nag man mënu ma comprendre tey yàqu-yàqu yi ñuy wax nii yépp détournement yi ñuy wax ak yi fi xew yëpp moom président Macky Sall moom mooy premier responsable bi. Mhm. waa après ñu bëgg moom cette personne là moom mu génn réew mi dem fële ca euh, pacte de Paris sëñ bi soo jëlee décision da ngay assumer lépp luy conséquence ci décision boobu mhm. da nga opté pour dem liggéey ak le président Emmanuel Macron ci cadre 4P euh, boobu noonu waaw mais na ko Macron jox ay. xaalis ak ay garde ak yeneen ak yeneen ya muy soxla mais ñun réewum Sénégal loolu dañ koy jox koo xamante ne da nga ko mérité et personnellement je pense que président Macky Sall mérité loolu ci ci Sénégalais yi parce mais du ma jël sax douze ans ba ba léegi mais da ngay jël de deux mille vingt et ak deux mille vingt quatre mhm. lan la Macky Sall jëflante ak Sénégalais yi lan mhm. rey nit yi jàpp nit ñi te ci kaso bi. Mhm. imagine ah dans un ñu dem ba di compter di wax ay entre mille deux cent et mille cinq cent détenus politiques. ndaw yi nga jàpp tëj dee nervi ne ci mbedd mi ku jur yëngu ñu rey ku yëngu ñu jàpp tëj ci kaso bi yooyu bi xew si biir réew mi après léegi ñun kooku dañ ko war a tatagal quoi kooku dañ ko war a tatagal di ko jox ay dafa am loo xam ne ci sa doxalin nga koy mérité mooy ba nga yoree réew mi kat. ak lu mun a xew ñu ne ah moom mi nekkoon na président euh, ci réew mi. Euh, bilan am baax na wala baaxul l'essentiel mooy jéem na li mu mën mhm. jóge na ci réew mi ci ni mu gën a rafetee kooku su boobaa mais fierté lay doon ci ñun mhm. kooku mun na toog bër bu ko neex mu ñëw ci biir réew mi bu bu accès ci biir réew mi réew mi euh, ñi ko bëgg dem tatagal ko dem teeru ji ko mu am comme actuellement li mu nekk di def nii def ay appel vidéo gi woote mhm. mais dama jàpp ne réew bu dee yor nga ko ni nga ko war a yore war ngaa mën a jékki-jékki sax même boo génnee réew mi sax war ngaa a jékki-jékki ñëw dugg ci réew mi dox say soxla pourquoi mënul ñëw def ko donc je pense que dafa am loo xam ne nii c'est tout à fait logique bu ñu ko jox dërëm président Macky Sall dama gëm ne ñun sénégalais sax moo ñu gën a riche donc euh, richesse boobu mu am na si dund France gée mu nekk di leen servir bu amee lu mu soxla na ko laaj ki nga xam ne mooy patron muy Emmanuel Macron mais Bassirou Diomaye fay le président de la République du Sénégal amul dara loo xamante ne nii war na ko jël ne daf koy warloo ak l'ex président euh, Macky Sall parce que nag wax dëgg yàlla réew mi xaalis boobu bu doon par exemple benn un milliard la bu ñu war a jël ne dañ koy jox président Macky Sall xaj na ci réew mi yàqu-yàqu yi mu fi bàyyi moom dañ ko def foofu te foofu foofu la waree. Mhm. loolu daal moom laa gëm mais ay yëkkati ay privilèges ak ay yeneen a ngeen jox ay Macky Sall franchement nañ ñu ko jéggal rek. alors euh, professeur ñëw ci wàccaayu élection législative yi. Mhm. naka démb noonu gis ab euh, kuréel bu bees bu judd mu bett sénégalais yu